asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi jégalu démb dama yend woon ci tey sëriñ bi tey jii ndawul Touba dellusiwaat na ci seen émission bii di Touba no yónni mbokk yi xoole bi tëli xool ngeen oto yi donte taw na démb it waaye lii deel ñàkk réparé xoolal xoolal jal yi xoolal jal yi nga xamante ne bi kii moom daa def ay jalam ngir defar magasin baare yoon yi lépp kañ la dëkk bi jag dëkk bi dëkk bi kañ lay jag kenn ku nekk toog di seetaan amul kenn koy def